loolu di ko waat man la wax yow waru la. ya yow da nga dem a dem bu sonn mënoo dem nga taxaw. damay daan xaar ci yoon bi ñu ñëw. damay daanam yaa may dégg. voilà eh. bu neexee yaa suñu borom damay daanam. sa sikki bi bu ma la lan. neexee yaa suñu borom damay daanam. billaay dina la du ma la daan ah, maa la mu. déré jooyal déré. nekkal fii di wax rek jooyal déré. waaw waaw waaw waaw waaw. billaay wallaay maa la wax kii nii. ah ba bi tege loxo waaw. voilà xanaa mu daw gerte gi sax gerte gi bari yow. ah ah sax bu bees bu génn dëgg ak combat ba jeex. loolu la ñu ñëwee. Eh. ay ay règlement am ca lamb jëf. loolu kay duñ ko def di ree duñ ko def di ndax man su garoogee danaa summeeku ci bu ci may dana am kay danaa summeeku kon songo bi dana bëri bëree suñu may fii nii léegi la ko moom wax la bu leen bëree fii moom bul lokk micro bu leen bëree fii bàyyi leen ba arène arène baa ngi nii ñaar naa neex na baat jant bi sona kay naa daan arène nationale bu neexee yàlla suñu borom dinañ daje ci àll bi ci neex na waa ji taxaw nga ma laaj fekk na ma nindi ndir ñaata combat laa fa bëre ñuy dugalaat ay nit motul 15 combat di war a dem final sa ah, ndindi bugg laaj ko. tonnerre maga. kon leer na laaj ko 15 personnes la dama wax day tungam seen waaye loolu lépp ma la jàppee lépp mooy ñoom ñaari man daal li ma xam mooy. te defe naa ñëpp xam nañ ko ñaar ñii moom loo ci mën a dégg la ngañ jaañ xaw ma garmi ne woon Tafa Gueye dëgg bàcc Seras combat jinne la day bëri tàkk-tàkk waaye lii combat jinne dana ko defee ñaar ñee def nii boo ko defee doo ko boolee ki wax da ngay noppi rek tey seetaan mooy dàq cim ndaje léegi li may wax mooy idaal yi idaal wax maa ngi bu baax a baax a baax parce que combat bi hmm. bëgg dafa bëri am na ko kon bëggoon bëri man ku ne woon di ma combat yaa may li daal dañ koy sant bu baax a baax parce que suñu morom la hmm. kii moromam la man sama grand frère la <laughs> yaa may maa koy sant bu baax a baax parce que combat bi na ngeen fexe boog lépp lu waay waxanteeg moom ci combat yi ko def te nga andi xam ne nii dina sawar pour pour beneen yoon pour ñu tegaat la mais waxuñu nga andi comme ça calendrier bi nga fi andi woon combat yi passé na nga fexe ba na nga mobiliser waat te ak samay mbokk di woo waa Touba Toul ñëpp sama famille maam maa leen di woo bu baax baax a baax di woo groupe Touba Toul xam nga maa leen di woo bu baax a baax di woo Amet Dieye di jiital Amet Dieye maa ngi koy bu baax a baax Touba Toul ferte maa leen di woo yéen ñëpp autorité autorités yi ne ci groupe bi yëpp maa leen di woo ngeen jàpp ci combat bi yéen ñëpp maa leen di woo parce que combat bi suñ combat la combat li ci war waru ko man la war lépp lu war ci combat bi man maa war de def maa ñëw war a ñëw appliquer lépp gagné combat bi dem ñibbi di woo di woo waa Touba Toul waa Newraan maa leen di woo bu baax baax di woo sama waa dëkk waa Sambaay CSN Ndion ci la di woo sëñ Mbacke Sylla sëñ Xaadim Sylla wàcci la maa leen di woo bu baax a baax a baax ci combat bi di woo kii sëñ Ablaye Diop maa lay woo ci combat bi di wax combat bi sa combat la non Ablaye Diop la rek bàyyil noonu waaw maa koy woo bu baax yaa ma di Babou Sarr maa lay woo borom Sowal di la wax ne combat bi sa combat la waa Jilas ñëpp maa leen di woo ci combat bi parce que combat bi sama combat la waaw di di di nuyu Baye Massamba Niang Baye Jili Tarkinda ginnaaw yàlla combat bi moo tax mu taxaw Baye Jili Tarkinda maa ngi koy sant bu baax a baax a baax barki Sëñ Fallu Tarkinda bi combat bi moom laa koy bëreel billaahi wallaahi waa bu taxawee. Hmm. billaahi dama dama dama. kii ba bis boobu. non sama dafa tàng quoi. Ababacar ah, dafa am loo xam te bu yàggee sax amaana suñu nawle yi si biti après di seetaan yaakaar naa daf ñuy daf ñuy dañ ñuy xaw a sax manqué de respect. parce que affaire warul nuru de mbër dof la rek dof la a def yëf d' accord lii day neex mais nit da ngay def sa bopp responsabilité parce que am na yoo xam te teru ko. am na yoo xam jaru ko quoi bi jeexee jeex na am lay laay def. wax ji mu seet. bu bés ba bu neexee yàlla suñu borom. incha allah yàlla nañu ko fekk. yàlla nañu képp ku fi teeku ne rek yàlla na yàlla may bakken bii ñun man ka kalkata fekk ko. Mhm. ñun ñëpp àndandoo dem esat mhm. ci kàttanu yàlla incha allah bu neexee yàlla suñu borom koo naa dégg day jooyaat mais maa ngi woo samay mbokku yëpp samay mbokku lébu yëpp bàyyi ma kenn damay woo ñëpp. ki may njëkk mooy sama benn grand boo xam ne dafa may jàppale dafa tawatoon Amadou Cid maa ngi koy ñaanal tamit yàlla yëkkiwaat ko yàlla defal ko jàmm parce que macha allah combat bi passé jàpp na si bu baax a baax a baax a baax a baax ku mel ni Seydou Ndoye jàpp na si bu baax te dama koy woowaat monsieur le maire Albin Ndoye dama koy woowaat bu baax ñëw jàpp si. di woo nag sama mbokk lewu muy waa Thiawlène maa ngeen leen di woo ñëw jàppaat si. bu baax a baax a baax a baax a baax As Diouf boo ma déggee amaana nit mënu la dab boo ma déggee na nga ñëw jàpp si bu baax di woo tënjee jépp bàyyi ma kenn moom na reen di lim damay juum ba fu dëgg yàlla parce que boo limee ki bàyyi kii nit dafa gàtt xel wóorul mais maa ngi woo waa tënjee jépp bàyyi ma kenn di jégalu nag hmm. lépp loo xam te ne man personnel Ronaldinho wax naa ko mu doon loo xam te débordé na may jéggalu te xam ne nit matul. dëggantaan nit matul ay doomu aadama lañ. am na solo dañoo bëgg rek mu neex. dina neex sax incha allah te na ba pare. kon dañuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm. may ñu fanu gudd may ñu wér gu yaram. may ñu tal ak man ak fekke. boobu bés ba bu boobaa incha allah si kàttanu yàlla koo ñaa di du ko may daan. kon loolu leer munu ah, loolu leer na xam-xam boobu amul ah, doole boobu bëgg nag daa am lu ngeen ah, ko seqal nag te ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi non bàyyi leen ñaar ñi ñu ñëw non dafa am ñu ma àndal Baye Jili maa koy nuyu Baye Jili borom Kolobaan Sañse waaw moom laa fi àndal ak Galas Diagne Seeri Ulay Assane Sarr Seeri Assou maa koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Cheikh Sinoa xam nga borom Ndar waaw ah, borom siin maa ngi koy nuyu di ko woo ci combat bi tamit. am ak Babou Sarr koy waat ci bu baax a Baye Sall Diop. sama siamar maa ngi koy woo. Hmm. xam nga di nuyu Abdou Faye sama mag xam nga Galas. Hmm. sama doom bajan Lamine Faye Lamine Bidik maa koy woo ci bu baax. waa di nuyu ñëpp di nuyu waa Colobane bu baax di woo Cheikh Bokum Bekaay. Hmm. maa ngi koy woo ci combat bu baax. waa di woo Ousmane Ndoye suñu maire. am na solo maa ngi koy woo leen ci loxo idaal yi kon teg leen ci loxo idaal yi bu dee bu dee nangu ngeen seen loxo yi laala arbitre rek la ñuy de ak ñoom surtout moom macha allah yee ñun dañuy arbitre